والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 faslun mu ne bunt la bil yaa i ci yaa baada tan gannaaw yaagunu tan wiin lu mel ni mu ne xuddan xuddan jum doon ci alxuraan boo koy bind dangay bind yanara yaa maas ko ñaari maas ka duxan moom it du am liif duñ ko dog duñ ko jog dañ koy def yanara moom it ak ñaari masque yi ci kaw niki asan kenn du ko dogal liif moom it yanara lañ koy bindal yaa lañ koy bindal defal ko ñaari maska lu mel ni xussan moom it ñaari maska lay am am yaa waaye yaa ji yaayi yanara lay doon hamman moom it yaayi yanara lay doon day am ñaari masque yet lu mel ni siwan moom it yanara lay doon day am ñaari maska yat suddan yanara lay doon day am ñaari maaska yat kasaaniki fatan fatan it moom it xaalu samihina fatan yaskuru moom itam noonu lañ koy def duñ ko def liif gu dog dañ koy def ma euh, yanara maas ko ñaari maas yat lu mel ni maswan moom it day am yaa ñu maas ko ñaari maas ka yëpp lan musallan musallan it dañ koy maam moom it yanara lay doon laam gi day ànd ak yanara mooy yaa gi ñu maas ko ñaari maas ka yëpp ni ki muftaran it muftaran moom it day am ñaari maas yet ci kaw yanara gi mawla nit gannaaw bu ñu defee laam dañuy def yanara ñaar maas maas yaaga ñaari maas ka yëpp ki mu samanit moom lay doon day ma day yaagi dañ koy maas ñaari maas ka yëpp ak mu safan ca sóoratul xitaal ak wa quran saahiran wa quran moom itam noonu lañ koy def gannaaw boo defee raagi xam nga raa gi bu fekkonte ne dañoo def quran boo defee raa rek mën ngaa def liif daal di maas waaye moom it day am yaa comme ñaari masque yat xadux tëlifu wuute na nag wa fii ca la nga xam ne fatax san bokk na ci maanaam fatax san lëhum ja ca sóoratu muhammad yi muhammad moom siin lay doon moom du doon yaa siin lay doon am liif ak liif gu liif gu dog liif googu it da cee sax maanaam ci la dëkk fatax san lëhu fa qiila ñu wax ne bil yaay yaa googu wa suyral siiwalees na ko bil alif yi ci alif alqawlu ay wax la alla si fii fii la fii ca la nga xam ne ataa dikkee na bil alif yi ci alif laf san tudd ko wahinda ci moom wahinda rasmi ca mbind ga muy waaw gi bil waawi ci waaw yëf yi góog dana dikk lu mel ni wamanaata wamanaata saalisatal uxra moom du am liif waaw gi dañ koy at ci kaw liif liif gi dañ koy at ci kaw waaw gi riba moom itam waaw gi dañ koy at ci kaw liif gi liif gi ci kanam riba gi nag liif ak sukkeen googu ci baat bi la dëkk waaye saaba yi bindaali ko woon salaata liif gi dañ koy at ci kaw waaw gi salaata goo gis ci alquran ni ki sàkkaata it goo gis ci alquran waaw gi dañ koy at ci kaw liif gi xayaata goo gis ci alquran it waaw gi dañ koy at ci kaw liif gi ak xaddaata bil xadaati wal xas yi ja ca sóoratu kahfi moom itam waaw gi dañ koy at liif gi dañ koy at ci kaw waaw gi miskaatan mis euh, miska kamiskaatin moom it waaw waaw waaw gi dañoo jël liif gi aj ko ci kaw ilan najaati ja ca sóoratu xafraan hmm. wa sabtu sax ga fi salaatihim ci salaatihim maanaam boo xasee bay bind salaat salaa nag loo ca yokk ca baat ba liif ga liif gu rëy lay doon maanaam liif ak lama liif liif gu sax la lu mel ni salaatihim ak salaati wa sa ak salaatukum ñoom ñëpp seeni liif dafa sax te laam liif am liif laam alif la ayaatuna ak ayaatuna ayaatuna yi liif gi dafa sax liif gu dog lay doon ak ribban ribban it liif gi dafa dog hmm. wana waati ak yu mel ni moom foofu lañ waxoon ñu yem fi waaw ñu ñëwaat ñu hmm. dem faslun lii aji wax la bil yaa yi wa bil yaa i yaa baxda tanwiin gannaaw yaa gu ñu wiin xuddan yaala guñ maas ñaari maas ka yat duxan yaala guñ maas ñaari maas ka yat asan yaalay doon guñ maas ñaari maas ka yat xussan yaalay doon guñ maas ñaari maas ka yat amman it hamman moom it yaalay doon guñ maas ñaari maas ka yat ni ki noonu siwanit noonu lay tuddee ak suddan yaa lay doon guñ maas ñaari maas ka yat kasaa ni ki noonu fatan moom it yaa lay doon ñu maas ko ñaari maas ka yat ak maswan maswan it ñaari maas ka yat lay doon am ci kaw yaa gi ak sallan ak muftaran ak mawlan ak mu musamman ak musaffan ak quran lim la waxoon ci wuute gi it mooy fatax san fatax san moom liif lay doon am ñaari masque yat ci kaw moom du du du doon yanara mhm. fa xiila waxeef na bil yaayi ci yaayi wa suurin siiwe siiw siiw na ci moom alifu alif alif ga alqawlu wax ja fi fi la si ci la nga xam ne attaa dikkee na ko bil alifi ci alif laf si tudd ko wayen da rasmi ca mbind ga bil waa wi ci waaw ga lu mel ni lañ waxoon fi naja manaata wa manaata saalisatul uxra moom liif gi day tege ci kaw waaw gi war ribaa ak ribaa wa sakkaat ak sakkaat salaat ak salaat wa sakkaat ak sakkaat xayaatun ak xayaat xadaat ak xadaat ak miskaat najaat ak najaa wa sax ga fi salaatim ci salaat salaat moo moom nag lañ la wax ne la moom ñaar laam alif lay doon moom la liif gu ci dëkk la muy ñaari liif gu rëy ak salaatii baatab salaat ci la bokk ayaatuna ak hayaatuna riban ak riban li riban li turbo fi am waali naas ca kii lay wax na waxaati ak yu mel ni yooyu waaw naka mu waa léegi Hmm? waaw. Hmm. alif la waaw waaw. waaw léegi li ñu doon wax ne li ñu doon wax ne maanaam euh, boobu bu jàllee li ñu doon wax ci boole ba neen naa leen dana guddal dana gàttal léegi dafa am hmm, bi ñu waxee ne bi wax bi ñu waxee ne waaw gi nga xam ne day dikk ci kaw alif gi lañ la ci waxoon mooy daf ne waaw waaw gàddu nguul waaw gàddu nguul gàddu xam nga ko gàddu mu waaw hmm? Hmm? ngóol yat waaw ngóol mooy waaw mooy yat waaw ngóol waaw nguul kay xanaa ñëpp xam nañ ko waaw ah, jawrin kañ nga ñëw siyaar naa la maa ngi ci jàmm samaana juróom-ñett yoon la ñëw ci alxuraan waaw samaana samaana waaw salaata salaata waaw waaw Abdou ana ana bi sakkaata hmm. salaatak ak sakkaata xayaata ak riba salaata sakkaata А мы, мы bil xaddaati waaw maanaam bu ñu la xasee wax benn ne la am na nii rek nga xam ne foo ko gis ci alxuraan nii lañ koy def ngóol mooy yat yat rek yat rek yat kay yat rek la <laughs> yow yat rek yatu yoon rek waaw boobu boobu ce que duñ du àgg ca bindub suba agsi na ci tey waaw waaw naa ji baax na waaw moom lañuy ñuy ñaareele incha allah hmm? Hmm? waaw waaw li ci des waaw léegi waaw léegi de benn benn rek laay joxe waat bàyyi waaw wala dangay ñëw benn boole rek hmm. waaw

léegi bind biñ jàngoon mais mel ni am na xayaatu naa hmm? Hmm? xayaatu naa duniyaa mu ne ayaatu naa ndogaan juróom. Hmm. pourtant man de dama convoyé mi ngi ci kayit bañ ban hmm? ci déedéet maa déedéet maa maa maa maas rek nu may def <laughs> sëñ Bamba <laughs> li xayaat da xanaa day am bëñ waxi ci jàngkat a metti waaw moo ne moo ne lii lépp ngi xew ci daara yi de dañoo gis ku leen def nii rek daara yëpp ay def nii de waaye <laughs> yi moom doo ko ñeme moom ah. <laughs> noppee dañuy tasaaroo rek <laughs> kon xayaatu naa ndogaan juróom bañ na mootu lan xaam nangu na mootu yaar moomin ak jaasiya fil xayaati ku mu dun yaar la xaaf li xayaati yi nga fajri xayaa ndogaan xayaa ndogaan xayaa gi nga xam ne boo ko bindee rek day dog waaw xayaa xayaa ndogaan cay ah déet nag déet nag déet nag xayaa ndogaan kat lañ lañ santaane léegi waaw bu dee waaw waaw waaw waaw waaw. noonu la. ah déedéet mënut a. waaw. naka mu leer na. xayaa ndogaan juróom. bañ na mootu. xam nga boo doon jàngalan xam ba ci ayaatu naa dunya dootoo wax nammuut kooku li li ma la doon wax léegi lijjanti na la baat ba même boo ne nammuutu it boo boo boo boo rungee da xam ne ge ca lan xam moom amut nammuut waaye boo ne ayaatu naa dunya nammuutu na wana yaa nag jaasiyeteeg moomin moomin am na moominoona am na jaasiye am na fil hayaa tikkumu dunya ca la xaaf li hayaati yi xaddamtu li hayaat yi sëñ bi boole yëpp riis maanaam maa ngi koy joxe kay ñoo riisut ñoom ñoo ñàkk xorom waaye boole ci boppam moom lu mel ni moom amut waaw waaw xam nga bu buñ xasee ba ne mag rek jamono jii buñ xasee ba ne mag rek mag dem na waaye man li may wax toujours li may wax mooy lu gone yeewu yeewu yeewu na xam ne mag a ko kon naka la ab dof bu kan nasu naka la mën a juree nit sëñ Abdou bisimilah. Hmm? <laughs> sëñ lay tari nga waaw baax na mhm. bismillaahi rahmaani rahiim kon ñu dellusiwaat ci bindu boobu rek bi ñu jàngoon léegi muy faslun wa bil yaa bax baxda tanwinin huda duxan azan gusan aman siwan huda suda ah, faslun lii bunt la buy leeral wa baxda tanwin gannaaw tanwin day gannaaw ñaari maska tanwin jàngoon ngeen ne mooy ñaari maska nun koy wax te doo ko bind bi ngi ne hudan wax nga ak ñun bi nga siwan wax nga ak ñun bi nga ne musafan wax nga ak ñun waaye nun googu doo ko bind kon loolu mooy tanwin tanwin nag bu fekkee ne dafa am baat yoo xam ne boo ko tanwinee dootoo ju def alif ak yaari nga koy bindal yaaga yi comme nañ ko waxee woon démb ca dopp moom foofa ngay maas ca kaw yaaga ca ña ko wax am ñu ne arafa arafa jiitu yaaga kenn te ngay maas kon loolu jàng mi ko jëlat kon dafa boole rasm ak dam kon ñu jël euh, euh, tanwin am na muy hudan tanwin bi am na léegi nag nee kon baatu hudan yaa ngi koy bind waaye doo bind alif muy benn doxan doxan it euh, yaa ngay bind doo bind alif adan xam ne fat xaale doon adan hmm. adan kasira comme na nga ko jàngee kooku it euh, moom bu dee isan du wokk xam nga isan jàngaloon na ko waaye da moo tax ma mu bind euh, mooy euh, adan xusan ñëw na kon yaa ngay bind doo alif aman ba tey tanwin tanwin gi ñëw na yaa ngay bind makay nen siwan siwan it tamit nga ñëw ne kon yaa ngay bind euh, añu taraka sudan sudan moom it yaa ngay bind dootoo bind tamit nga ñëw ne yaa ngay bind baat yooyu kon kaza ni ki nii it fatan maswan musallan muftaran yooyu yëpp yaa ngay bind mawlan musamman wa musafan wa qura quran yooyu yëpp yaa ngay bind waaye nag wax xaddu tulifa woo def nan fii rasmit euh, tax san fa tax moom boo ko dee bind wuute am na ci am ñu ne yaa ngay bind am ñu ne alif rek ngay bind yaa rek moom amutoon loolu amul ñu ci wax lenn lu dul moom yaa rek koy bind muy baat yi ñu bàyyi sowoon waaye baatu fa tax moom am na gu wuute ñii ne nañ da bind alif ñii ne moom yaa ngay bind foofu la wuute gaan moo tax mu ne faqiila bil yaa yi am na ñu ne yaa wa suhiral alif alif ga it siiwal nañ ko am ñoo xam ne alif ga ca lañ ànd am ñoo xam yaa nga ca jënn wax ñëw alxawlu wax ja fi si ca la nga xam ne ataa dikk na bil alif ci alif laf son di lu ñuy tudd wañ daras mi buñ ko dee bind bil xam nga boo dee bind alif boo dee wax alif nga wax ndax boo ne manaata alif gën alif nga ko xëcc alif nga xëcc ah, ah, fatxa nga xëcc kon alif nga ko xëcc waaye nag waaw nga koy bind ba pare rek te alif kon manaata ci la bokk dégg nga riba riba dañoo wax ay suja fu mu mën a ñëw moom it noonu lañ koy bindee alif ngay def doo bind alif rek da def waaw ba pare def alif ca kaw salaata salaata yit moom it dangay ngay bind mut laxaan salaata rek bu dee salaata rek boo mu damir jum àndal loolu dana ñëw ci kanam wax nag damir nag bu boobaa mooy mutakalim la wala muxaataba la wala muxaatab la lu mu mën a doon rek bu boobaa moom da nga koy dog waaye jii moom da nga koy da koy aj mooy waaw zakaata zakaata it moom it fu mu mën a ñëwee noonu lay mel xayaat xayaat moom it fu mu ñëw mën a ñëw bu fekkee moom it amut damir moom it moom ñoo ma yem moom it comme ali waaw ngay def def alif waaw adaat mishkaat najaat yooyu yëpp yooyu alif ngay bind waaw ngay bind bind alif wasabtu wasabtu muy euh, euh, alif bu sax alif ga saxaaba yi bind yi ndax su mooy alif yi nga xam ne saxaaba yi fekkuñ ko fi taabi ni ñoo ko fi indiwaat ba bind ko waaye saxaaba yi lañ doon jàngal yonente bi alayhi salaatu wa booba alif gu sax lañ xamoon dégg nga moo tax man wasabtu sax ga muy alif gu dijj ga alif gay sax fii salaat yim ci baatu salaat yi salaat xam nga jàngoo doon leen ne moom waaw la war am waaye nag bu fekkee salaat yim la damir euh, da caa da dolli ko salaat yi ina salaat yi wana sukk moom it gis nga ko damir da caa dolli damir mutakalim da caa moom it laam alif ngay def mooy da koy dog alif gi day day day sax dégg xayaatu naa baatu xayaatu naa moom it xayaat xam nga waxoon na la ne moom it waaw waram ak alif waaye comme demir la de dolli ko rek moom it da nga dolli da dagg alif gi alif gi dog lay doon dégg nga riban riban wane wuha ak yu niru yii yu niru yooyu tii yii tii ismu ishaara yii wane wuha ak yu mel ni ñoom tii yii yu mel ni yii yëpp rek noonu lañ koy jànge kon yaakaar naa foofu la bind bi moom fi la suñu xam-xam toll yi ci ni ñu leen waxee asalaamaaleykum wa waaw gàddu ngóol xam nga loolu waxi wolof la bi may wax damaa wax ne wolof waaw goo xam ne daa gàddu aw yat yat mooy ngóol samaana juróom-ñett la ci ñëw juróom-ñetti yoon la ñëw ci alquran maanaam waaw gi nga xam ne daa xëcc am waaw goo xam ne dañ koo tegal aw yat ci kaw yadd eh, liif googee mooy xëcc baat ba moom la wax waaw gàddu ngóol bu njëkk sax mag ñi dañ daan wax naan dof bu gàddu ngóol ndax kenn mësu ko gis waaw gu gàddu ngóol ci ñi doon nga ko gisee salaata shakaata hayaata ak riba bil xaddaati kamiskaatin ilan najaati ak wamanaata ñu dem léegi ayaatu ndogaan xayaa ndogaan waaw xayaa ndogaan xam nga xam nga jàng ba ñëw fii di ma la di ma di ma dicté lii xam nga nag maa bëgg sonal waaye xam nga ko wala déet waaw xam nga ko waaw waaw dañ ko xam xam xayaatu du yaa ngeeg nox nosx ba yor nga ko yor nga ko li ma ci bind la waaw ma maa maa loolu maa bind lii waaw du doon du doon waaw loolu booba man booba man dong ak sama néeg la lu ma neex def bu ma ñëwee fii nag sañu baa bañ ku ma korise xayaa ndogaan juróom bañ bañ nammootu lan xam nangu nammootu yaar moomi noon ak jaasiya fil xayaati kumu duniyaa la xaaf li xayaati yi nga fajri loolu mooy

waaw. ah. dégguma de mu ne. dégguma dégguma de. bañ bañ na mootu maanaam boo booy jàng na duniyaa ja ca lan xaam doo ca teg na muutu wa maa naxnu rek ngay wax ayaatuna dunya wa maa naxnu lu waaw da kii nag booy jàng jaasiya booy jàng jaasiya nag ak ak nag boo ne ayaatuna dunya nam mootu nga cay teg loolu mooy bañ ak nangu dëgg waaw kitaabu léwru waaw xam naa lu waaw moom waxoon nañ ne am nañu ko bind wala binduñ ko waaw kitaabu léewru samaana kitaabu léewru samaana saalikal kitaabu ak yabluqal kitaabu xataa yabluqal kitaabu ajalahoo ñoo nekk bàqara innama unsilal kitaabu ak xalaynal kitaabu ñoo nekk lan xaam wawudihal kitaabu yaar la sumër la ak këf ay yulqee ilayka alkitaabu ma nga xasas mal kitaabu wala liimaanu ma nga sóoratu suxruf sóoratu sooree ah booy jub ci luy toll ci genn wàll mètre booy jub suxruf waaw naa ah? ah ba jub sooree mooy benn la ci sooree <laughs> léew léewru le lewru lewru lewru mooy maaska lonk maaska lonk moom lañuy wax lewru maaska yat mooy sëwru maanaam li ko def nag mooy daa jaxase woon ay pulaar ak i ak i ak i wolof mu mel ni kon ña doon jàngale ba boo lay door a ba boo lay door a ñëw ñi ko doon jàngale ay pulaar lañ woon waaye ay wolof lañ ko doon jàngal léegi nag wolof yi ñoom dañ caa bàyyi lenn dañ caa bàyyi pulaar ya la ca des ñu ñu def ko wolof parce que boo ko doon wàññi tey am na naayo mooy nay am njeego mooy juróom benn am sàppo mooy fukk bu ko defee li ci des euh, wolof ne di wax ñett wala mu ne juróom wala mu ne ñeent ñeent mooy nay waaw njeenaay mooy juróom ñeent waaw sàpp mooy fukk léegi nag loolu euh, da da koy jaxase waaye lama leen doon wax ne leen pour ñu xam ko da ciy baax ndax buñ ko xamoon bu loolu buñ ko xasoon xam duñ ko laajaat ñu xasoon xam turi saar yi xam turi araf yi xam turi wañ yi moom buñ ko waxee rek da ngay daal di xam fa réedu mooy laat daat daat réedu mooy biir daa naan day wax ne riidu ndaanaan juróom su laan suddoodan jigéen saddiidan biriim sulliyan mare min bay ni sulbiya nga taaraq yooyu boo ko de boo réedu ndaanaan bañ mu daane la dañoo bëgg nga foogu ko boo koy bind boo déggee ndaanaan rek boo déggee rek ma ngi lay ma ngi lay préparel baat ba ca kanam ne la moytu ko mi ngi mel ni nga doon bëri nit ñi ah moytu ko ndaanaan la nag waaw turi xaraf yi. Hmm. Mbàkke. waaw. turi saar yi boo boo ko xasee buñ ko xasee buñ ko bindoon fii tamit buñ ko bindoon fii maanaam buñ ko enregistré woon par sab rek. waaw waaw waaw bokk ci moom turi euh, xeeti wàññi yi ci ci boole naayo njeego njanaay naayo mooy ñeent naayo naayo mooy ñeent njeego mooy juróom benn njanaay mooy juróom ñeent waaw moo gën a yomb de boo ko bindee boo ko bindee bu beneen boole ñëwee mën na koo jaxase doo ko comprendre waaw mais rek sëy moom bàyyi ko dem. <laughs> ñu war a jàng rek. te bàyyi ba ah. ah Fanda waaw. déedéet déedéet duñ ko bind. day jël temps bi jël tas bi jeex na ah joxe nga benn boole est-ce que doo joxewaat beneen boole. ah de doy na. waaw dama dama ne bu dee temps bi jóg. suñu résiste bi. والقلم وما يسطرون